waaw mi ngi noonu jërë ngeen jëf mbokki internet yu 313 digital yi ñu ngi leen nuyu ah ji ah, leen siyaar bu baax a baax ñu am mbégte dellusiwaat ah, fas yéene ko dalal moom Serigne Ibrahima Gueye nay leer ci suñu buumu jokkoo moom sëñ Ibrahima ah, mi ngi ci ligne bi bu dee yaa ngi dégg sëñ Ibrahima ñu ngi lay nuyu. waaleykum mi ngi noonu sëñ Ibrahima ñu ngi lay siyaar yaa ngi en direct ci 313 digital ñu nuyu la bàyyi la nga nuyu ak mbokki internet yu lay seetaan. waaw daanaka ndax léegi mi ngi mi ngi mi ngi leer waaw li ngay wax moo leerul ci man waaye man naa yaa ngi dégg mais sa maa ngi lay dégg mais mba mba boo ñu déggul du mën a sotti ndax euh, laaj yi la bëgg a laaj ak yooyu ndax yaa ngi ñuy dégg bu baax rek. waaleykum salaam wa rahmatulah. yaa ngi dégg sëñ Ibrahima. waaw waaw kon ñu ñu ñu dem rek ci ci waxtaan bi gis nga bër ki démb euh, kii di Ousmane Sonko ba muy wuy ji yow yaa ngi woon ci euh, cortège bi euh, gisoon nañu la wax ji bari na lool lool bëgg nañu nga ñëwaat ci mbir yi nga xam ni noonu la noonu la demoon sëñ Ibrahima ak yan nga ci gis ak itam yan jàngat nga ci am bëgg nañ nga dellu siwaat ci ah, mhm, ñu ngi lay fay di mhm. am mbégte ci waxtaan ak jotaay bi. ci mhm. jamono li xew ci di xoox ci xew-xew yi xewoon ci mhm. mhm. mu am ak jaaxle am ci naqar ñu am ci métit. muy del toujours rek muy. deux mille onze ba deux mille douze bu Macky Sall yooyu ci bopp réew ba tey mhm. jafe-jafe yooyu dafa mhm. waaye nag mhm. askanu Sénégal daf jaral déployer ay ay militaire recruter ay ay ay nervi ay ay police expérimentalisé justice lépp lu dul lu dul nguur dëgëral nguur mais jubluwu ci a jafe-jafe askan ak coono askan wi. jafe-jafe mais keroog sëñ Ibrahima keroog gis nañu benn oto bu weex bu bu nekkoon ci biir gis nañ la ba ñu taxawee yow yaa ngi woon foofu effectivement est que mën nga dikkaat ci euh, li waraloon mbir boobu ak oto bu weex boobu. ngeen ñëw li ah, ñuy li ñuy ñaawal rek xam euh, ne dafa jël quarante milliards jënd quarante trois milliards jënde ko ay armes jënde ko ay ay matériel ak te xamul fu mu ko jaarale. Mhm. te ministère matériel bu mu jënd maanaam euh, état Sénégal gouvernement Sénégal budgété ci wuñ ko bu dul xam ne dama jaar ci budget Sénégal. Mhm. ba pare jaarul ci force force d'arme. te 43 milliards nga jëndee ko ay ngànnaay. jël ay mhm. nit bitim réew dugal leen ci biiram réew. jubluwoo ci loolu éliminer benn personne. jubluwoo ci loolu politique. loolu rek moom moom mooy mooy li li dalu kàllu Sénégalais yi. te it dina ko dana ko réglé daf dañ ko a réglé. maanaam état Sénégal dafa war a régler pourquoi Macky Sall jël na 43 milliards di ko def ci armée ba pare jaarale ko fu mu war a jaar armée Sénégal ne tekk gendarmerie nationale ànd ak moom nekk ak ay police ñëpp ñu toog di seetaan Macky Sall naan ay dëkk bi ci éliminer benn adversaire mooy mooy Ousmane Sonko. Hmm. loolu ba tax bi ñu xëyee suba teel Ousmane président Ousmane Sonko génn këram ànd ak koomaam ñu dikk ba ci ci rond point ci rond point bi. Hmm. ba ci ci point bi rek benn pick-up boo xam ne nii ñi a nekk nanguwuñu génn kenn nanguwul identifié leen kenn nanguwul leen a gis. donc dañ ne ko benn pick-up ndax dañ jël pick-up boobu dañoo président Ousmane ci a force dugg suñu diggante dugg ci suñu combat. Mhm. biñ dikkee bloqué foofu blocage bi métti ñu taxaw nañ leen mën taxaw wàcc leen ne leen da ngeen da ngeen jënd cortège ndax yéen xamuñu leen te bokku leen suñu cortège. bu mhm. nekk ci biir ay nervi man maa leen teg bët duñ ay seeni police seen police gendarmerie ñu nekk ci biir oto bi am mbooloo lañ buñ dikkee nga leen génn leen ñu lànk bëgg a dugg ñu bloqué ba ñu bloqué pour mhm. taxaw ne leen matal leen nañ ma daal di wax sécurité Ousmane Sonko ne leen ñi ay néru leen nañ génn ma ne ñi ay néru leen nañ génn ñu taxaw foofu ñu taxaw taxaw ñoom nu ngoo ñoo génn oto bi wax ak servière yi man xooloo leen ba gis leen soluñ teni yu lañ sol teni yu communes lañ sol hmm. ba ma dikk ma gis commandant bi ma ne ko commandant ma ne ko ñii ay nari lañ dañ génn hmm. commandant bi ne ma ñii ak ñu la ànd ma ne ko déedéet ñu génn ñu xool leen commissaire ma ne ko ñii nañ génn ñu xool leen rot lànk bañ a génn oto bi man nañ fa taxaw nañ fa lu mat trente minutes hmm. ñoom nangu ñoo génn biir oto bi te ñu ci biir oto bi nangu ñoo génn ñu gis leen te yor nañ ay arme yor nañ arme yor nañ lépp su mel noonu nag boo toppee ñu dem ba ca kanam encore ca côté côté euh, corniche bi hmm. mag dafa yeneen ñaari oto ñaari yeneen ñaari pick-up yu weex comme boobu même même même même couleur bi ay nit yoo xam ne kenn ku ñu génn nu mu ñu génn gis leen est ce que loolu état responsable dina jël ay nervi jël ay mercenaires ñu dugg ci combat di topp ko te ne président Ousmane Sonko gendarmerie nationale di ko xool. Mhm. police nationale di ko xool ñu bàyyi leen ci biir combat bi. d' accord. ñu wax ñu insister foofu ñoom la ñu wàcc ñu gis leen ñun blanc bañ a wàcc. gendarmerie mhm. police dañu war a génnee leen ñu gis ñun ñan lañ mais ba léegi nanguwu ñu ubbi oto bi. Mhm. nga ne kon li ñu waxoon ne Macky Sall na ay armes ay ay ay ci biir arme ci biir police nationale wala man def ko ci biir ASP yi. ñu nekk ci seen biir bu bëgg a def sale boulot loolu man dama ko confirmé nag dama ko gis. parce que Ibrahima Gueye maa leen gis. d' accord te alerte naa ko signalé naa ko police nationale ne ko ñu ngi moom génn mu bañ ñu a génn ñett ci oto laa ci gis ñooñu noonu da nga leen wóolu mën nga leen wóolu ci Ousmane Sonko. d' accord ak waaye nag xam ne Macky Sall ak ñu mu àndal mënuñu mënuñoo jël bëgg na Ousmane Sonko te yàlla suñu borom dogalu ko. d'accord mais mais mais ci loolu. li nga ci gën a métti mooy. Mm-hmm. police nationale di seetaan. Mm-hmm. gendarmerie nationale di seetaan. Mm-hmm. ay mercenaires ay nervi du yor ay dugg ci oto topp président Ousmane ko te li arrêté wuñ ko lépp luñ mën def ñoom ñu koy teg seen bët loolu est-ce que ñun danañ ko seetaan. est-ce que ñun dañoo yaakaar ne réew mi ñoom am jàmm ah. Sall ak ñi ma àndal na leen leer leeral yàlla ne Ousmane Sonko waxuma la gis-gis mais Ousmane Sonko buñ ko xool buñ ko xoosee xoos fekk na ko defee incha allah taala kenn du ci mucc ñoom ñëpp kenn du ci mucc benn par benn lañ dañ ko jëlante ak ñoom. su hmm. ngeen bàyyi Ousmane Sonko paase yi nekk seen ginnaaw paase na si ginnaawam. ñu hmm. bëgg a éliminer Ousmane Sonko ñu ko bàyyee Macky Sall nañ demoon ba Thomas Sankara. d' accord nañ demoon ba Thomas Sankara éli Thomas Sankara éliminer ko physiquement bees comportement def ko. ci loolu tànk yooyu lañ taxaw pour éliminer Ousmane Sonko mais loolu ça ne passera loolu damay damay alerte Sénégal yëpp ne leen incha allah taala réew mi bu fekkee bëgg nañ jàmm képp koo xam ne ni bëgg nga jàmm bi nga xam ngay ab ab ab ab ab ab général wala nga ab commandant wala nga ab gendarme dama nga teel a jël seen responsabilité bi Macky Sall ak li ñu dese li ñu dese mooy taal réew mi rek lañ leen jaral pour ñu taal pour ñu déstabiliser Sénégal ko def ndax xam nañ ne. un an moo ci def wala dix mois moo def ci Macky Sall tëjee réew mi léegi nag moom bala moo dem nee na il faut mu taal réew mi ak ànd ko ay bandi yi ma àndal ay délinquants yu topp ci ginnaawam jël arachide jël détourné ay milliards askan wi def ci ay scandale scandale ku ci nekk yaa ngi yor dossier yoo xam ne ni leer na leer yàlla ne bu la justice toppee. Mhm. ci kaso bi nag ñoom au lieu que ñuy def loolu nañ taal Sénégal bala ñoo dem loolu mooy seen intention léegi nag armée Sénégal dinañ jël responsabilité. ak yi nga xam ne nii ay ay ay nit ñi ñoo xam ne dañoo jógoon pour défendre Sénégal défendre afka peuple Sénégal. Mhm. ñoom war nañu jël seen responsabilité ci Macky Sall. ndax Macky Sall li bëgg bu ko defee ñoom ñëpp responsabilité Sénégal lay gën a métier. ndax mën nañu fekk indi ci réew mi loo xam ne nii du baax ci ñoom. du baax ci ñoom mais anam yi ñu anam yi ñu ah. tëjee quand même. anam yi ñu tojee oto Ousmane Sonko parce que gis nañu ñu toj otom bi euh, mu doon anam yoo xam ni quand gis nañu ko ci vidéo yi nga gis ko yow itam euh, ci ci ci ni ñu tojee otom bi. Ousmane Sonko otom bi gis nga nii dañu ko toj pour génne ko ci biir euh, bile oto bi fi mu nekkoon. Euh, déggante bi déggante bi euh, xawuta neex mais ma ni Ousmane Sonko otom bi ñu toj parce que dañu ko toj ci toj otom bi génne ko ci dugal ko ñoom ci seen oto yi nga xam ni moom la ñu yoroon. waaw xam nga loolu xam nañu sax mën nañu sax benn affaire am na muy ñoom fekkee ne ñoom. administration bi ñu jubal pour sécurité am. Mhm. te wóoluwuñu ministre yi xam ne ñoo nekk ci biir ànd ak euh, police nekk ci ànd ak ay ñu ñu ay ma te kenn xamul leen identifié bu fekkee ne loolu lañ dem ba amuñ ci wóolu wóoluwuñu loolu. Mhm. ñu jël Ousmane Sonko encadré ko dugal ko ci oto bi dañ la yóbbu ba këram bu fekkee ne loolu infraction boobu lañ jublu kooku moom moom seen baax na waaye daal li mën a xew li li mën a am mooy ñoom dañoo war a fexe ba sepp ñi nga xam ne nii dinañ ñi nga xam ne nii dañoo leen dugal ci police nationale. Mhm. ànd koog ay complice yu mel ni ay général Moussa Fall la xaw ma ay ay xaw ma yàgg ñooñu am benn intention ak président Macky Sall ànd ko ministre de l'Intérieur am benn intention pour éliminer Ousmane Sonko ñoom police nationale euh, non gendarmerie nationale ak police nationale ñoo ak ak ak ak armée nationale ñoo war a jël seen responsabilité li nga xam ne Macky Sall dugal na ko ci suñu biir biir police nationale ñu génne leen. Mm-hmm. ndax ñoom Sall bu li ñu bëgg a def suñ ko defee day nekk catastrophe ci ñoom amee ci Sénégal. catastrophe boo xam ne nii duñ xam fan lay tàmbalee fan lay yem mën na indi restaurer guerre civile ci dëkk bi déstabiliser Sénégal te loolu boobu li gën a am solo rek ñu fexe ba alerte arrêté Macky Sall ak ñu àndal. Hmm. ñu arrêté seen sale boulot yi ñu bëgg a def ci Ousmane Sonko loolu ça ne passera pas. d'accord loolu di indi jàmm ci dëkk bi. Hmm. li ma leen di xamal di leen ko xamal mooy nañ jël responsabilité Sénégal Sénégalais bu nekk muy Sénégalais lambda kilifa diine kilifa aadam muy armée nationale muy ñëpp nañ jël suñu responsabilité pour Sénégal sauver ce pays. ndax réew yi tàgg yëpp bi ñu leen di taal ñu leen di taal bitim réew lañ jógee am na ko ay président comploteur la ñu taal réew ma kon nag ku nekk Sénégal am fi sa responsabilité nga xam ne yow sa doom Sénégal la dëkk fi lay jànge ñu liggéey Sénégal ba mu yegg si fii ci démocratie mhm. ñu jël benn président marionnette bu mel ni Macky Sall mu bëgg a taal réew mi na Sénégal yi jël seen na ku war a jël sa responsabilité jël sa responsabilité ndax ba mu fekk dëkk bi tàkkee na bëgg moom mooy éliminer Ousmane Sonko coûte que wala mu ne ko doo dem ci élection te xam na ne Ousmane Sonko du bokk ci élection du indi jàmm ci réew mi ndax loolu du yoon du loi il bi mu bëgg a utiliser pour yaakaar na mën na éliminer Ousmane Sonko ba dugg ci projet fàtte nañ ñu ci Adji Sarr bi dossier Adji Sarr bi justice Sénégal topp lañ ci ay at ay ñu rey ci ay nit ñu koy xëy a teg dossier bi jëlaat beneen dossier ne dañ ciy am ndam mais loolu ci lañuy gën a ci lañuy gën a ñàkk ndam ay tappale politique bi ñu ko éliminer justice bi nga bëgg a politique loolu ñu nga jël sa responsabilité qui est responsable premier responsable ci justice Sénégal ay la fees bii di ñëw le 17 ak le 40 ak ñun lijjanti wuñu loolu politique mënut ko éliminer Ousmane Sonko mënuñ ko liquider comme ni ñu liquider Khalifa Sall bu ko defee bu ko jéemee tam dëkk bi day tàkk te bu dëkk bu tàkk bi justice qui est responsable lu leer la ñuy wax. d'accord bu fekkee ne da ngeen bëgg a yor réew mi jeexal ngeen na présenté élection organisé élection bàyyi Sénégalais yi tànn seen président. te mënu leen a tànnal président nag diw mooy tey dana bokk kii du bokk loolu ah, am amoon amoon na defoon na ko mais jeex na gëm ak Sall gëm ne incha allah taala kii doon président deux mille vingt quatre moom du ko choisir Sénégalais hmm. ko muy taaw naan kii dana bokk kii du bokk ndax moom mënut a bokk gannaaw mënut a bokk rek bëgg a taal réew mi loolu duñ ko nangu d'accord ku ci war a jël sa responsabilité jël sa responsabilité d'accord muy ku mën a doon nag hmm, d'accord justice bii nga xam ne moom lañ bëgg yaakaar ne justice bu ñu daan doon restera a la loi te ñoom ay doonuñ ay justice ay politiciens lañ ay ay ay magistrats yoo xam ne politique doomu la ñuy def liquider adversaire politique di politique Macky Sall la ñuy def bëgg ko làq làq fa ci ginnaaw loi fekk ah, a def Ousmane Sonko te loolu insha allah taala buñ ko defee ñoom duñ ci mucc ñun duñ ci mucc ndax danañ xeex ak ñoom te loolu du jaaxle d'accord na leer na nañ ci askanu Sénégal gépp hmm. bu fekkee ne ñoom dañu leen dénk réew mi ñuy fay réew mi ba dernier moment hmm. douze ans après amuñ benn solution ci ndaw ñi amuñ benn solution ci askanu Sénégal ñu bëgg a taxaw ne léegi dañuy éliminer Ousmane ko pour seet keneen ku la noonu loolu ça ne passera pas. d' accord. loolu dafa war a leer. d' accord mi ngi noonu. en tout cas daal li may mhm. démb fa la ñuy taxaw. Mhm. dossier bii ak dossier Adji Sarr bi benn dossier la yëpp politique la. Mhm. justice nag lañ bëgg a def na saal bu la bi jaarale ko ci karaw justice jaarale ko ci ay loi mais loolu lépp daanaka ci jàll. Mm-hmm. nag gouvernement bu 2024 jotee mu jëppale langue yi na Sénégal na ko Abdoulaye Wade bàyyi woon réew mi takkut Abdou Diouf bàyyi ko réew mi takkut Senghor bàyyi ko réew mi takkut na am jantal maanu fexe ba sauver Sénégal bu dee Sénégal bëgg a liggéey na bàyyi Sénégal yi tànn seen président mm-hmm. moo tax euh, loolu mooy dëgg te mooy am mm-hmm. insha allahu taala suñu bakkan lañ ci teg président Macky Sall na xam ne réew mi pour mu baax dañoo xeexoon ba am ba mu yegg si fi mu yegg ci démocratie te ba ñuy xeex moom bokkutoon ca xeex ba tey nag suñu bëggee teg dictature bi daw moo gën a xam ne mënut amul mënul nekk Macky Sall moo la gën a xamal ne incha allah taala mënul continuer di ñu teg ay dictature ñu koy accepté san du ñu ko accepté Ousmane Sonko c'est patrimoine la ko dafa am espoir ci Sénégal yëpp ak Afrique espoir boobu bu yaakaar na ne moom man na koo mën na ko ali mën na ko éliminer day nax boppam Ousmane Sonko fa ko Macky Sall mënoon a éliminer boobu passé na ko loolu c'est important te gëm yàlla xam ne yàlla lu mu dogal noonu la am moomu Sénégal doonu ko ci waajuram héritier wul senegal ay élection lañ ci jaar démocratie mu falu ñu tànn ko nag organiser ay élection senegal yi tànn seen président point loolu mooy dëgg di leen xamal ne Sénégal yëpp nañ gën a yokk seen taxawaay d'accord ndaw ñi ne ndaw ñi nañ gën a yokk seen taxawaay détermination suñ force bi amul ku ko mën a annulé amul ku ko mën a arrêté ñu gëm ne insha allahu taala yàlla wax na ci alquran ne hmm. inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim man yàlla du ma soppi am askan lu dul askan wi ñoo jóg mi métti na dund bi seer na ndaw ñi amuñu liggéey maanaam euh, euh, euh, dund bi seer na transport bi doxul agriculture bi doxul pêche bi doxul dara doxul. ñu bëgg bay Macky Sall mu continuer jël li nga xam ne ni moom la yàlla indi ci réew mi muy mu war a am stabilité dal ak jàmm. ak développement ah, malheureusement mënuñu dégg pour que ñu relancer ko tuuti ci question yi incha allah taala na gëm yàlla ne ah. incha allah taala Sonko la ma ko waxoon démb laa koy wax tey mhm. loo firaaw président Macky Sall yàgg ñi nga ko ci Ousmane Sonko loolu la leen leer jërëjëf loolu moom na leen Sénégal yëpp moom nag lu ñu dellu ginnaaw du ñu tiit du ñu dellu taxawoon démb bu karaw la ñuy taxaw tey xeex dëgg taxaw Sénégal mhm. bu jaree bu lu mu jar mu ngi ci taabal yi moom nag benn affaire la defee. Mhm. yaakaar na ne am na ay missionnaire xam ay israélien la xam fu mu demee jël dugal ko ci waaye lépp ci kawam lay këpp. Mhm. te na bàyyi xel ne incha allah taala benn benn bakkanam bu fekkee ne moo gën suñu bakkan yi dana ko dana leer. d'accord benn bakkanu ak ña ànd ñoom ñoom nag lu leen jaral. Mhm. lu mu leen jaral na leen ko. ay ñun ñi taxaw lu mu leen jaral benn jaral ñu fukk lu leer laa man Ibrahima Gueye lay laa tudd. lii may wax nii mooy dëgg te am réew mi kenn moom doon ko ci kenn héritier wu Sénégal dañoo doon ay sénégalais am ay droit teg war koo respecté am droit chaque juróomi at yu ne ñu tànn président am droit di tànn suñu président mu génne ndaw ñëpp ci liste électorale bi ndaw ñëpp mu doon leen non inscrit ci liste électorale bi ne leen ci mënu ñëw mu teg. Eh, sëñ Ibrahima. saa bu élection jotee mu teg ay parrainage ay tappale. sëñ Ibrahima wax ay système instrumentalisé gendarmerie police waaye loolu sax léegi dafa jeex. Ibrahima Gueye waaw Ibrahima. waaw waaw yaa ngi dégg voilà ko ci pour pour ñu ñëwaat ci parce que gis nañu ay photo yoo xam ni ay euh, euh, takk der loolu leen yoo xam ni dañu gis seen xanam yi kanam yi xonk cur ba ñu wax ka ni xëy na dafa am euh, yeneen i nit yu jóge ci yeneen réew ñu dikk rax suñu armée bi est-ce que loolu mën nga ñu ci wax tuuti tuuti. Euh, man armée bi gis nañu ci ay photo yoo xam ne ak ay vidéo yoo xam ne gis nañu ci ay kanam yi euh, yoo xam ni seen kanam yi euh, gis nañu ci ay kanam yu xonk ba ñu njort ni sax xëy na dafa am ñeneen ñu ñëw laaj bi laaj ndax li déggante bi moo déggante bi moo leerul muy photo yi ñu gis ci ay takk der yoo xam ni seen kanam yi gis nañu ci ay kanam yu xonk ñu njort ko ni ñoom duñu ay sénégalais peut-être leeru leeru leeru voilà déggante bi moom moo xaw yaa ngi dégg bu baax. xaw a ndax yaa ngi dégg. ñëwal ma xool ñëwal. Euh, yi dañ ci gis ay euh, kanam yoo xamante ni si nii muy takk der yi gendarme yi ay kanam yu xonk lañ ba ñu njort que ñooñu xëy na duñ ay sénégalais ay ñeneen ñu ñëw euh, infiltré suñu suñu armée bi la. Ah, waaw dañ xam ne Macky Sall Sall bu bi mu bëgg def loolu jaral na ko. am na ñu dugal na ci ay israéliens am na ñu ne ay colombiens. comme mhm. comme ay comme colombien li wér ci waral mooy. Mhm. armée mhm. jël seen responsabilité ci réew mi. bu ñu bëggee ay nit Macky Sall ak gouvernement jël ay nit ci ci àll ba. ay ñoo xam xam suñ dugg ñu ñu ñu dugg ci te ba pare ñu am ay renseignements généraux yu leer. ba taw arrêté lii Macky Sall lay def ñu ko ba ay quelques personnes bu détaal Sénégal ñoom seen responsabilité la. mais peuple moom ndax Ousmane Sonko peuple bi ñu ko protégé. Hmm. Macky Sall ko bëgg a éliminer jaarale ko ci justice ak ak police ba ko ci jaarale waaye nañ xam ne peuple bi ñoom fi ñu taxaw mooy incha allah taala Ousmane Sonko. Hmm. ci li ñu leen jaral mooy seen mooy seen espoir. peuple moo ëpp doole moo ëpp doole loo mën a gis te danañ xeex ak Macky Sall ba ma xam ne incha allah taala réew mi peuple population bi ñooy décider mais pas moom. Hmm. mënul ci jël ay ay ay ay ay magistrat ay ay juge am. liñ bëgg defal la ko ko moo dem toog loolu changé na loolu moom la jàll. d'accord léegi bu dugalee ay ay ay ay ay mis ay ay ay ministres wala mu dugal ay mercenaires yoo xam ne ñu ngi ci seen biir. Mhm. di yor ay ay ngànnaay. Mhm. loolu loolu loolu loolu seen seen seen perte yi. Mhm. ah ndax benn ñoom bu liñ liñ bëgg bu fekkee ne ñoo xam ne xool sant na xool nañ ko sant nañ ko. quatorze régions yoo xam ne département yëpp ngi taxaw. Mhm. pour pour jël jël jël seen destin en main. Mhm. loolu ay quelques personnes ay mille personnes ñu ko arrêté. d' mhm. accord te xëy na liñ ko mën nii. dañ ko yoon sax ne ko fii la réew mi jëm rek ndax boo xoolee département yëpp régions yi ñu ngi commencé ñu ngi commencé wane seen seen taxawaay ci derrière Ousmane Sonko. te seen duñu arrêté. d' accord duñu arrêté rek. te la ma ko waxoon rek la ko fi Anta Diop waxoon ne ko ku ñuy remplacé Abdoulaye Wade dana dee physiquement. na koy bàyyi xel. comme président Macky Sall lay bàyyi xel la ko Cheikh Anta Diop waxoon. Hmm. ne kii remplacé Abdoulaye Wade dina dee ñetti dee. dina dee physiquement dee physiquement moom nag moom lii muy teg nii su ko teg boobu bu ci mas a jaar président bu ci mas a jaar doo wàcce ak doo wàcce ci réew mi ak bakkan ndax moomuñu moomuñu. mais mais sëñ Ibrahima. waaw eh, yaa ngi lay dégg. maa ngi lay dégg. Eh, génne gi ñu génne ci otoom dugal ko ñoom ci seen ay oto loolu est dal na seen xel ci loolu noonu.

gis na ci yaram dara dana leen ci médecin bi dana ko ba pare mais en tout cas daal a xew daal nañ xam ne. liquidation a rey. Ousmane Sonko dañ ko war a rey. ñoom dañoo xam ne dañoo xam ne Ousmane Sonko bu ñu ko reyee ñoom duñ faral ñoom bépp laaw ñoom waa APR yëpp kenn du ci faral bu ñu reyee Ousmane Sonko ñoom ñu taral ci télé yi ak ñi ko dëkk bokk ci complot bi ñoom ñëpp la ñuy rey benn par benn. soit bu ñu demee dañ Ousmane Sonko bu ngeen sax bu ñu fexee ba liggéey da ko rey ko billaahi wallaahi tallaahi ku ci bokk nañ la rey yaa dëkk Sénégal yaa xam nga nekk daw dem Europe wala nga dem dem Amérique ku ci nekk nit dana la fekk rey la mënu ñoo mucc réew mi dañ ko teg ci dëgg teg ko ci yoon Macky Sall ko duñ ay jaam duñ ay esclavage dañoo xam démocratie démocratie bi dañ koy respecté force force lañ koy respecté mhm. ndax dinañ xeex bañ ba mu jeex tàkk loolu leen dara dañ ko jaral d'accord incha allah euh, sëñ Euh, kii ministre boobu ministre de la jeunesse moom moom Pape Malick Ndour moom nee na euh, ku dee sa yaay di juraat waaye Sonko su deewee dañuy doon doon lu soxnaam kàddu yooyu bi nga ko déggee naka nga ko jàngate dégg nga. Euh, Pape Malick Ndour moom nee na Ousmane su deewee moom dañuy doon na Ousmane Sonko xam nga xale yi ñuy wax Ousmane Sonko moo ni ku dee sa yaay juraat waaye kenn du ci dee bu soobee yàlla. moom nee na Ousmane Sonko su deewee na ay soxnaam parce que dañu koy donn moom ministre bi moom moo yëkkati kàddu yooyu. bu deewee bu deewee dañuy donn soxnaam. ay soxna yi Ousmane Sonko. waaw. nee na Ousmane Sonko su deewee dañuy donn soxnaam. bu génnee dañuy lan. Euh, déggante bi moom moo ne xam ministre de la jeunesse. kàddu yi mu yëkkati n'est-ce pas naa dégg ko muy nee na moom Ousmane Sonko su deewee dañuy donn ay soxnaam ñoom. ay soxnaam. ay soxnaam ci moom donn. bu dee ay ci moom. waaw la ñuy ci moom waaw. moom bu dee moom moom moom day dee bu Ousmane dee moom dee dee moom mi ko. Ismaïla Madior Fall bu fekkee ne Ismaïla Madior Fall moo wax ne Ousmane bu dee ay ay soxnaam la ñuy doon. Mhm. moom Ismaïla Madior Fall bu Ousmane Sonko dee moom dee. Hmm. dégg nga. d'accord moom ko wax muy yàmbati mu mën a doon. Mhm. ñoom ñeneen Ousmane Sonko bu dee ay soxnaam la ñuy doon. Mhm. ñoom bu Ousmane Sonko dee ak ko mën a wax. bu dee bu Ousmane Sonko dee yow da dee ak ku la mën a làkk da ngay dee dañ lay na leer. d'accord ñoom ñooy kan. ministre de la justice boo xam ne yow irresponsable la barki démb lañ la nga doon wax démb ak li nga wax tey dara bokku ci tey dikk taw di jaay nit ñi yow mel ñoom dañ leen a rafet li wuñu leen Ousmane Sonko suñu la bu fekkee ne mu la wax moom bu dee moom bu dee ay jabaram sax kenn du ko del ndax dañ koy rey rey ay jabaram loolu ku ko wax laa wax kenn Ousmane Sonko bu ay jabaram la ñuy doon bu dee yow dañ dañ dañ lay rey rey say jabar say doom ñu rey leen. d'accord. foo ñu euh, arrêté seen wax yu vulgaire yi ñu wax nii. déggoo naa si ñu arrêté ko. Mhm. ndax seen bàyyi moo wax dëkk bi dëkk bi dëkk démocratie la kenn amul droit taxaw di menacer nit ñi bu ko def incha allah taala li lay wax lañ lay wax dañ lay koy def dañ la koy def duñ la ko wax réew mi dañ koy teg ci yoon mu neex leen mu naqari leen incha allah taala. d'accord. d' accord ñu ngi koy jaajëfal baax a baax moom sëñ Ibrahima Gueye nay leer moom la ñu àndaloon eh, ci biile waxtaan jaajëfal leen yéen itam ñu doon seetaan bokki internet di 313 digital jox leen dig daje incha allah ba beneen yoon ci seen beneen numéro jërë ngeen jëf.